waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa Sénégal sëriñ Modou la borom di leen di nuyu baax di leen ziara leen baalu àq di leen baalu àq lu bari macha allah mu mel ni démb ba léegi wala barki ba léegi suñu téléphone mu ngi xar si ñi nga xam ne ñi ngi sàkku ñu def vidéo ndax tàmm nañ ko si ñun saa yu actualité amee wala saa yu xew-xew amee yoo xam ne yéem na nit ñi wala jaaxal na nit ñi te xamuñ lan moo ko waral ñu bëgg ñu génn di ci def sortie di ci joxe seen émission boobu nga xam ne ñoo ko bokk dañ ko lippee muy xam-xamle euh, xam-xamle nag tey dañ leen indil li nga xam ne nii euh, lu gën la ci askan wi lu baax la te lu baax la lu lu lu parents yëpp war a bàyyi xel na parents yëpp bàyyi xel li may wax nii ci émission bi gis nga boo xoolee lii salaam xawlan min rabbi rahim la gis ngeen ko comme ni ma ko wane noonu ci image bi nii ngay daggee xaatim bi gis nga boo daggee nii xaatim bi بسم الله الرحمن الرحيم دف بسم الله بروم يسا يالاو يالاو دفنا حاسد انتسا حسد تبريكو تشبك بي سوكو دفع سلام خوالد من ربي رأي نتي خاتم بي تبين جسنا بوش من دي نتي خاتم بين خاتم بي تيام بيت خال تدقي بي بيت خال بي مولي دمالي رغد ني سوكو دفع بو دنكي دول ترو كي نخم ني مونغو بغا آم مو خم سدوم بو جيجن لا يو مي نخم ني يو ياي بو يو مي سيطان بو دمي استاذ بي مام دينا لك بو كواخي مام دينا لك بندر su ko defee boo dugalee bayti xaal bi fii du tuur xale bu jigéen bi nga xam ne ni bëgg nga moom mu téye ndawam ba keroog mooy am borom kër nga dugal fi turam nga bind beneen boo xam ne du am bayti xaal bindaat beneen boo xam ne du am bayti xaal léegi bi nga kon am nga ñetti salaamu xawlan min rabbi ko defee benn bi da koy tag ko benn bi sangoo bi nga xam ne moom lay sangoo nag boobu bu koy sangoo day ut ñetti xal yoo xam ne mu ngi dund da ngay booyal furna nga ut ñetti xal yoo xam ne ñu ngi dund suko de defee nga def ko ci nga bol ko mu sangoo ko benn mu nan ko benn mu takk kooku ci katul yalla ko mbaaxam benn do adam du ko meuna sakku ci lo xamne lu ko neex la mom sax ak ci lo xamne lu ko neexul la fek neexul ko wala fek mi koy neex ken mënu ko sàkku ci àdduna lool bo xasse def sa dom inshallah wa xawati dina dem ba am borom kër euh, te ta du am benn jafé jafé ci wàllu ndawam boobu euh, xaatim la bo xamne neewon nañ dañ ko joxe tay xam-xam la bo xamne neewon nañ dañ ko joxe ci kattan yàlla mbaam bu ko defé inshallah rabbi la wadi yep ma ci xel diko defal diko defal sen do nako nonu bi nga xamne mom lañ bi nga xamne mom lañ jëm ci bo xolé salam xawla min rabbir rahim ji bo xolé ñenti kër la bi bokul ak bi nga xamne mom lañ di bëgg wal bi da nga def salam xawla min rabbi da def rahim bi nga xamne mom mo am bayt xal bi gis nga bi da nga def salam xawla min rabbi dal defat min rabbi fi dal defat salam salaam noonu nga koy continuer ba xaatim bi jeex waaye kër gi nga xam ne mooy ne ci digg bi kër gi nga xam ne moo ne ci digg bi fii du am dara day nuroog bayti xaal waaye du doon bayti xaal du am dara su ko defee boo paree nga wërale xaatim bi bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim ba xaatim bi jeex gis nga ko noonu nga koy wëralee ba xaatim bi daal di féetee boor su ko defee incha allahu rabbi nga ut pàcc sémmiñ soo wutee pâtissier bi nga ut leen benn projet boo xam ne ñu ngi ci kër gi nga boole ko moom nga fexe tàngal pâtissier bi boobu ba mu tàng nga boole ko nga dugal ci biir xaatim bi ak projet boobu nga mi ngi ci kër gi nga waa kër bi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam lépp luy lool lépp loo xam ne lu am sell la bu duggee ci kër lépp loo xam ne nii luy gaaña loo xam ne luy watt la luy doxee biir wala luy raam comme lu ci mel ne ay jaanaka yooyu fekk mi ngi ci fekk loolu noonu ma wax la nii mi ngi ci kër gi wala waa kër gi def nañ ko bu ko ne loolu du man ci yéen dara te loolu xam-xam la yoo xam ne maam yi dañ ko fee bàyyi woon maam yi fee bàyyi woon te maa ngi leen di gënal si yàlla ne leen lii ma leen di wax nii képp koo xam ne ni te gisoo ci résultat ñëwoon na ne ma ràpp poñe li nga waxoon ah, dara amu ci man ñaan naa yàlla lépp lu may wax ak sénégalais wala lépp lu may wax ak waa adduna bi mu doon loo xam ne nii képp koo xam ne nii tey toog nga sa salle di ko seetaan wala toog sa kër di ko seetaan wala sa portable di ko seetaan nga mën koo dem ah, daal di essayé sëñ bi wàllu sàcc wàllu sàcc dafa mel li lëjër na nit ñi trop. wàllu sàcc. gis nga li ma li nga xam ne ni moom dinaa si ñëw question boobu dinaa si ñëw incha allahu rabbi bi nga xam ne moom laa leen bëgg a wanaat nii biir la moom it mu ñëw moo xam ne nit ñu ngi koy bàyyi ñu koy bàyyi ginnaaw léegi te lu ama ama am am njariñ la mooy salaamun xaw bi mbir bi rëy yi tey dama ko bëgg a tënk ci émission bi rek ci laa bëgg a tënk émission bi mhm. su ko defee yeneen question yi nga xam ne bàyyi nañ commentaire incha allah danañ ci def émission pour daal ci tontu. Mhm. gis nga boo ginnaaw boo bindee euh, kon bismillahi rahmaani rahim bi ba pare. Mhm. salaamun xawlan min rabbi rahim gi du am xaatim doo am xaatim da koy bind su ko defee 117 fois 117 fois ngay bind salaamun xawlan min rabbi rahimin soo ko bindee ba noppi da ut li nga xam ne ni moom la ñuy wax ren këng ak li nga xam ne ni moom la ñuy wax ren xaax ak ren bi nga ni moom la ñuy wax bu dóoboon xam nga par am na ñetteel. su ko defee nga jël ren yooyu nga baxal ko ba mu tàng ba ndox mi tàng ba nga xam ne yow mënoo koo mënoo mënoo koo laal nga boole koo xaatim bi su ko defee dem taxaw ci kaw garabu soto soto boo xam ne bu mag la nga sangoo xaatim ñetti fan ba mu su la neexee fekkee da nga siy jublu woo xam ne sax da lay aaraale ci nga xam ne mu jëm ci ñaw ka nga xam ne ay paaka ay benn dugub su ko defee ak benn nga boole ko nga sangoo ko soto juróom nga sa bopp setoo nga koy sangoo insha allahu rabbi kooku nee nañ borom xam-xam bi wax nañ ne ko képp koo xam ne def nga ko doo dee ci sa ndaw te insha allahu rabbi mën ngaa dund bañ lay weer ak a weri waaye ci kattanu yàlla ko baaxam doo dee ci sa ndaw su fekkee nga xam ne defoo ci poussé yi nag wala fekkee amoo lente yi nga ko tey boo ko defee nii boo ko defee comme ni ma ko waxee nii nga sangoo ko lépp loo xam ne nii tey luy jafe-jafe la ci wàllu àdduna wala luy lor nit ci wàllu àdduna wala loo xam ne luy nga nga nga comme comme comme comme lii gis li ñu faral di gis ci réew mi léegi nga nekk si ay jafe-jafe te kenn du ko yëg loolu loolu du la daal loolu bis boo xam ne yaa ngi wuy ji sa borom say mbokk nañ la tiim nga wuy ji sa borom wuy ji bu sedd doo dee ci accident doo dee ci géej waaye doo dee may yàqu loolu maa ngi ko digal Sénégal yëpp na ko Sénégalais yëpp def lii lañ leen indiloon seen émission ñoo ko bokk su ko defee liñ fiy digle nii yëpp euh, yàlla tombeek seen i bëgg-bëgg bu ko defee yenn question yi nga xam ne am nañ ko yëpp incha allah ñu ngi leen jox di dajee yàlla bu kenn wax ne lii nii nga xam ne nii moom lañ fi déglee euh, damay tayal ko duma ko def waaye na ko ñëpp def maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla defal ñu samihna wa atana wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu fi amanillah waaw kay kàddu yi ñuy waxtaanee nag képp koo xam ne am nga lu la ci lënt nga bëgg lu la ci gën a leer soo wootee ci numéro whatsapp bi wala nga bàyyi ci message vocal loo ci rab laaj ci rek incha allahu rabbi dinañ la ko mën a baaxee eh, ba mu leer naññ ci say nopp incha allah bi xóot yi lépp loo xam ne lu ci aajoo la it ci wàllu liggéey fas nañ yéene jàppalante ci ak yéen ndax bëgg nañ àdduna bi ñëpp am jàmm rawatina suñu réew mii di Sénégal yàlla na yàlla defal ñu jàmm defar suñuy mbir ci zaahir defar suñu mbir ci baatin wa aqiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fi amanillah